tey dañu woote ñun coalition citoyenne pour waxtaan ak sénégalais yi ak sénégalaises yi ñu ne ci bitim réew ak ñi nekk fii ci réew mi ndax coow li bari na Sénégal boobaak léegi coalition bi defagul benn sortie pour wax ni mbir mi tëdde buñ ne coalition nag nit ñi seen xel day dem ci par parlo ñun duñu coalition politique ñun coalition citoyenne lañ maanaam dañoo nekk ay kuréel yu bari yu jóge ci boor bu ne am expert ci côté bu nekk comme tey ci élection la ñuy wax ak ay enjeu moo tax ñu bàyyi camarade Bakar Ndiaye nga xam ci coalition bi la bokk ak mouvement am mu ñëw wone li nga xam ni moom mooy sunu contribution ñun euh, ci li nga xam ne moo mën a indi jàmm ci dëkk parce que lu ñuy xëccoo la kon nag bu ñuy xëccoo fokk lépp jaar yoon lépp leer loolu moo tax ñu andi ko mu présenté lu mucc ayib. wane wan yoon lan mën a jaare bu def élection yoo xam ni kenn du kon na table lépp day jaar yoon bu ñu paree kenn du contesté bu ñu paree ci loolu tamit ñu wane élection tamit boo ciy dem da nga war a xam lan moo lal élection yi. loolu moo tax ñu indi aussi beneen expert muy camarade Clédor seen sur les ressources parce que nag di xëccoo gox goxaan yi te xamoo gox bu ne lan mooy lan mooy enjeu ba lan mooy xeetu mbel ya fa nekk ak meññeef ya fa nekk. ba waral gouvernement bi doxale ni muy doxale kooku ko def jàpp naa ne dese ngaa doon mat li nga doon su ngeen gisee li xew ca Kédougou ko ne xam na ne Moustapha grace ak li mbokk ci élection yëpp xel mënta nangu ngay jiite ab gox presque ña fa ëpp nga gañe ko gañeeti ko ëppale fa ay nit yàgg a participer ci élection ñu bëgg laa taxal ni la nga déposé baawoon xam nga loolu ku ko dégg sa war ngaa xam na ay tappale la non mais tappale weesuwul loolu xam nga il faut que ñuy waxante dëgg Moustapha grace mun ngaa taxal ku nekk lu nekk quand mais taxaw naan Guirassy xamul nu ñuy déposé ay liste élection pour bëgg faa jaare pour éliminer ko xam nga loolu tappale weesu ko mais da lay won ne kon am na beneen enjeu bu ne ca ginnaaw li mu wax li ne ci ginnaaw mooy li camarade Clédor expliqué sànq déjà ba fi mu toll nii rek la fay meññe ña ngi koy exporté ci or te kenn xamu ko kenn xamul ñaata lañ fay euh, lan lañ lañ fay gase ci or par at benn Sénégal mun la wax même même Macky sax dañ ko ciy jox dañ ko ciy jox wàllam rek. kenn bind ko ci fenn amul fenn fu muy feeñ. léegi nag bu ñu gisee yeneen xeeti meññeef yu fa am ak ay mbell yu fa feeñ kon enjeu ba day gën a yokku loolu moo tax fi mu toll ni ñu bëgg a écarter yi. loolu am foofu moo am ci région yi Clédor Cité yépp moo tax nguur gi bëgg ni ciix juróom-ñetti région yooyu bu ko defee aaki moo alalu Sénégalais yi. def ci li ko neex jaay doole comme ni mu koy defee depuis mu nekk fi 2012 moom Macky Sall li loolu bi ñu ko leerle nag ñaar yooyu nga xam moo doon vraiment cëslaayu li tax ñu woote tey. pour wane ne ñun coalition citoyenne bëgg nañoo contribuer ci liy leeral mbir mi ak liy indi jàmm maintenant nag loolu ñu leeral ci ni coow li bari na fan yii ñëpp naan nañ signé charte euh, non non à la violence maanaam ñu fexe ba déggoo ñun sénégalais yi que bu. benn fitna yeewu ci Sénégal am ñu ko yëkkati ñu man cee lim ñaari kuréel parce que kilis ñoom ñenn xam ñoom lañ woo mooy ñi nga xam ñooy yenn organisation société civile yi te dinaa ci ñëwaat tuuti ci kanam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy imaam yooyu nga xam ñoo fa nekkoon may wax ni comme ne ko sunu naataangoo yi waxee sànq surtout Mansour waa ñoom xanaa dañoo toog ba ci àgg rek ne lay ni cëpp ci réew mi xanaa jaay doole bi Macky Sall nekk ñoom yoguñu ko woon Macky Sall nekk fi depuis 2012 ku bëgg a marche mu bañ jël ay policier ki gendarme di la duma fu mu dem comme dañ koy takkal brassard rouge ak di koy yuuxoo mu jël ay nervi yu koy dóoreel ñu bëgg a taxaw tay ñoom naan non ñëw leen ñu woote jàmm parce que jàmm mooy yoon mais jàmm day lalu ci dëgg bu fekkente ne da am ak kër yore fa ñaari soxna ñaari soxna yi bés bu nekk ñuy xeex ñun la soxna sa soxna si yey tooñ. au lieu nga woo ko ne ko soxna si doo bàyyi tooñ yow mi yaa tooñ bu ko defee kamay tooñ beneen soxna ba sax xelam xelam mën a dal waaye nga leen di woo ñoom ñaar ñëpp ci digg bi di je wane borom kër gu ragal naan non non damaa bëgg ngeen def jàmm parce que kër gi bés bu ne ngeen xeex waa doo wax kii tooñ boo ko kii kër gi am jàmm donc ñoom ñooñu li ñuy wax waxu tappale la waa waa waa cadre unitaire bi la cadre unitaire de l'islam bi ay tappalekat lañ te Macky Sall la ñuy liggéeyal c'est ça la vérité xam nga man du ma nekk di layam layam damay dox ci digg bi wax ko ni war a waxee beneen bi mooy Alioune ak mu Moundiaye Cissé je les respecte beaucoup parce que ñun deux mille 2011 ñoo àndoon di xeex bi Ablaye Wade di jaay doole. ñoo àndoon ak ñoom place de l'Obélisque ànd ak ñoom Daniel Brottier ànd ak ñoom ba 23 juin di xeex ànd ak opposition bi yore réew mi tey muy feu Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niass ak Macky Sall pour mën a yem ci ñoom ñett. ak ñeneen ñeen fa àndaloon ñëpp ak société civile ñun ñëpp waa lu tax booba bi Ablaye Wade di jaay doole rey fukki nit ak ñett lu tax ñoom Alioune Tine booba defaruñ ab charte ni Ablaye Wade signé non violence ñu la nga def nga bëgg. ñëw ànd ak ñoom Tanor lu tax waxuñu woon ñoom Tanor ak ak ak ñoom ak ñoom euh, euh, ñi nga xam tey jii ñoo ŋànk nguur gi. ci autour de Macky lu tax neewuñ leen woon kon signé leen pacte de non violence dañoo àndoon ak ñoom di xeex kon lu tax tey Macky Sall di def pire que Ablaye Wade parce que Abdoulaye Wade xeetu njom nga Abdoulaye Wade njombe lu ne def na ko Sénégal mais Macky Sall la ko yées gis nga Macky Sall il a une gouvernance violente Macky dafa soxor waaw maanaam mënoo jiite réew mi ba noppi di wane xol bu ñuul te loolu la Macky Sall nekk nekkul ci leneen waa léegi lu tax ñooñu àndoon ak Macky Sall ak feu Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse ak ñun ñi ñëpp ci société civile bi di xeex contre Abdoulaye Wade ci jaay doole bu mu doon de 2011 lu tax ñoom tey. nanguwuñ def la même chose taxaw woon Macky Sall ka yow li ngay def ko moo yées li Abdoulaye doon def kon kenn du ko fi nangoo tey kenn du fi nangoo ëllëg waaye làqatu ci ay ay charte non violence tappale ñoom ñëpp ci système bi lañ bokk bëggum ñu mu jeex kon Alioune ñu ngi lay woo ci xeex bi comme na nga ko doon defee 2011 euh, Moundiaye Cissé pour vous citer vous deux ngi leen di woo ci xeex bi comme nañ ko doon defee ànd ak ak yéen en 2011 parce que jaay doole bi am nii Abdoulaye Wade sax defu fi Macky Sall nanguwul ñuy dem élection yoo xam ne fichier bi kenn mun laa wax ñan ñooy voté ñan ñoo dul voté. ay sénégalais yu yàgg voté ba am 70 ans comme ni ma ko benn paa waxee na ma toog ba caag rek bindal ma ni ma léegi mënatumaa ci nguuru Macky Sall ci jaay doole te may voté ba màggat. musu sama bureau oo vote bii musu musu laa am voté bu ma fi voté wul bii yoon rek ñu dindil ma dindi ma ci liste yi ni du ma voté te maa dem police musumaa dem gendarmerie waa lii du violence presse là bi titre chaque jour naan l'opposition est violente mais cette opposition là cette presse là nañu arrêté non l'opposition n'a posé aucun acte de, de violence dans ce pays néew ma nag non on les connaît c'est-à-dire les il y a beaucoup de journaux qui titrent tous les jours di wax ne la l'opposition est violente ñun li ñuy li ñuy posé mooy jàmm day lalu ci dëgg aujourd'hui la violence est exercée par Macky Sall et son régime fii kun fi jiiñ violent rek dañ laa dañ laa tooñ nañ ñu jox benn vidéo boo xam ne opposition moo dem di dóore nan ñu ko woon benn amul te buñ la laajee vidéo Macky Sall mi ngi ne xoos ci internet <laughs> ah mais lii mooy dëgg jàmm day lalu ci dëgg buñ dul waxante dëgg réew mi tàkk lay def kon nag nañ waxante dëgg waxante dëgg mooy ku bëgg jàmm am ci dëkk bi da ngay wax Macky Sall mu arrêté cette violence là bi mu exercé su les sénégalais te moo gën a bu xat ñëpp parce que 8 mars bi mu defee discours am bu gàtt boobu ngeen gisoon boobu dafa tiit daan ni moom jàmm lay wut léegi comprendre na sénégalais yi ñaan sëñ mun taxaa mu ñaan ñun ñu may sëñ mun Muntaxa moom mu def lan dem yokk li mu policier yokk li mu gendarme am dem gën leen équipé taxaw nag nee na day jàkkaarloo ak ñun peuple sénégalais bi. mais xam nga lu mu lu mu réere mbir mooy sénégalais am na yoo xam kenn du ci dellu ginnaaw gis nga Macky Sall bu fi nee troisième mandat lay def wala mu fokkati élection yi jaay doole. dañuy taxaw fipp bu jàmmaarloo ak moom on va appeler à la résistance parce que moom réew mi. la mu waxoon moom le 20 juin 2011 moom Macky Sall ne le combat sera dans la rue moo ko wax yéen ñëpp di ko dégg. c'était en deux mille 2011. ñun tamit la même chose bu defee li Ablaye defoon. la même chose on va appeler les sénégalais à la résistance parce que moom moomu réew mi doon na ko ci maamam doon na ko ci waajuram moom moomuñu mënoo nekk suñu surga ba noppi dañu jaay doole Macky Sall ci jaay doole la nekk kon ku bëgg jàmm ci dëkk bi da ngay bañ a làqatu ci ay charte non violence gis kiy tooñ doo téye ci loxoom ne ko arrêté tooñ mais dem kañuy tooñ nga naan ko non yéen ñaar ñëpp yem loolu du andi jàmm kon kuy andi jàmm da ngay wax kiy tooñ ne ko arrêté tooñ bi te ñëpp gis na ni Macky mooy tooñ kon nag ñun loolu lañ bëgg a leeral pour que mu leer ci kanamu Sénégalais yëpp ni lim bëgg nii kenn du ko fi nangoo xoqatal nit ñi ginnaaw bi mu xëppee ñeen ñenn ñi parce que Macky Sall ñaar la am xëpp mbaa xëpp bu bëggee ngeen ànd mu jël alalu Sénégal jox la ko géré la ko ñu bari dem nañ bokk ca xëpp ñu nanguwul mu xëpp leen ñun nag danoo taxaw ci digg bi ñun waa coalition citoyenne le peuple ànd ñoo nguur ànd ñoo ñuy xëccoo nguur mais lëf yi day tegu ci yoon maintenant nag opposition bi fa laay daaneele bu ñu def dañ leen a wax ni élection yi ñun lii ñuy propose ñun coalition bi ci système de vote ci système ci nen lañ war a jaare ba élection yi jaar yoon nan ñëw partagé ko xeex ko pour mu am ci réew mi pour pour yëf yi tegu ci yoon suñ ko deful buñ demee ci élection Macky day ñëw tojee élection yi coow li bari te du mujj fenn kon xeex bi heure bii la on les appelle à la responsabilité li leen wax nii ne nañ ko def nañ ànd ak ñun ñu teg mbir mi ci yoon et c'est pas compliqué en vingt quatre heures ñun suñuy expert Babacar ak son équipe bu ñu demee toog ak les experts de la DAF ñu teg fichier bi ñu teg ko ci yoon sénégalais yépp voté ci dal kenn du euh, sàcc benn élection bu ko defee bu jàllee jàmm am ci réew mi waaye kaay leen ñu signé kese loolu taxul jàmm am ci réew mi. parce que soo signé moo tax man d'accord ma ci opposition bi signé il ne faut pas signer un charte de non violence xam nga luy dëgg mooy na lépp jaar yoon ñu teg lépp ci yoon bu ko defee bu ñu demee ca élection ya ku gagné ñëpp d'accord ni moo gagné mais bu fekkente ne dañoo teg nit muy jaay doole. ñu seetaan ko ne ko continuer jaay doole mais nañ signé benn charte boo xam si lu lu mu mën a jaay kenn def dara man kooku d'accord ma ci loolu moo tax encore une fois maintenant nag lu may terminer loo xam ne euh, peut-être euh, sama gars yi wax ñu ko mooy gis nañ fi benn affaire bu bees fan yi ginnaaw bi Orange dee jaay doole ñun ñii dañoo dem rencontrer Orange c'est important loolu ñu leeral ko ñun coalition citoyenne dañoo dem rencontrer le directeur général de Orange ñun ñëpp ña nga woon ca réunion ba. et son équipe. équipe yëpp ñëw toog. ñu ne ko sénégalais yi sonn nañ ci prix yi ngeen di appliquer yéen orange transfert bi cher na yéen a ngi ñuy jaay ay euh, ay ay forfait yoo xam ni du forfait parce que suñu la forfait benn jour jour journée bi yëpp da war a loolu moo am France mais Sénégal lay jaay journée boo wootee ñetti waxtu ñun la jeexam demal jënda te dañ laa jaay journée for forfait bi journée lañ ko tuddee wala ñu jaay la une semaine boo wootee ñaari fan ñun la jeex na wala ñu jaay la weer boo wootee une semaine ñun la jeex na loolu Sénégal rek la am amul France amul benn réew. waa léegi la même chose ci sa connexion waa léegi ñu ne ko lii cher na ñu wan ñu arrogance bu metti keroog cere réunion ba am déet mhm. lañ leen fa wax yëpp c'est impossible mu ni loolu du ko def ñu ne ko transfert d'argent bi ngay def tamit dafa cher tarif yi ngay appliqué dafa ëpp mu ni looloot mënu ko wàññi waa kon sénégalais bu leen xëyee xëyee rek orange wàññi te kenn wax ko wàññil mooy wu jëm yéen koy bëgg a rey <laughs> waa léegi sénégalais yi xamul leen di poussé mooy sénégalais yi bu leen kenn taxatuxu rey leen ko ba mu dee parce que ba ba ngeen ko nee wàññil dafa bañ kon du ngeen am wujjam woo xam dafa ñëw wàññil leen mu bëgg a wàññi lu gën a yees wujj wi pour bëgg a rey wujj yu mu dee mu dellu ci prix am nekkoon kooku kenn du ko fi nangoo ñun suñu rôle la coalition citoyenne le peuple c'est d'éclairer le peuple mooy leeral askan wi jafe-jafe yi nga xam moom lay dund kon même bu wàññee ba wàcc moins de un pour cent bu benn sénégalais tuxu nañu rase ci wujjam wi koy bëgg a rey parce que bañ ko nee wàññi nangu la wàññi wàññi donc loolu c'était une à faire